alhamdulilah alkarim silmilan alastifaad bi furud wa sunan sakartuhu lianna qad saafani li watani nafa ma anfani salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk mi del siwaat ci 2220 euh, ci ànd góor jigéen waaye ci sariya ak aada nga xam ni yi nga xam ni lañ ko dañ ko cee boole te aada rek indi ko ak it ànd yàlla taxul wala ànd yàlla tax ak it di bàyyi xel nag ak gërëm waajur yi nga xam ni seen sëyëb doom tey day buñ fa amee njaboot seen waajur ñoo ci jàpp maanaam ñoo joxe seen doom jigéen ba noppi liñ amaku si koy bokk ak seen doom ju jigéen ak jëkkëram ba sëy ba taxaw yooyu waajur yooyu bari na ci biir réew mi lool wax dëgg yàlla ni safaan bi amee waajur yu bari yàq seen sëyub doom xeebal sa doom jëkkëram lam am doonte sa doom bëgg na waaye muy lu mat a moytu lu mat a moytu mbokk yi waaw ndax sëy moom boroom xam-xam yi dañuy wax ni euh, dañuy wax ni yow jullit bi xamal ni ana siwaaj sunnatul anbiyaa wal mursalina euh, sunnas yonente yi yàlla yónni woon ak anbiyaa yi ñoom ñëpp euh, buñ doon téeméer neel juróom ñeent fukki ak juróom ñett denc nañu gis nga kon walaqad arsalnaa rusulan min qablik wa jaalnaa lahum azwaajan wa zurriya <coughs> loolu mooy dëggal wax gu mel noonu kon di roy ci wàll gu mel noonu moo tax ci lislaam moom bëggul li ñuy wax ak làbbe woo laa laa rubaaniyatu fi diin alislaam moo ko wax mbokk mi nii waaw dafa gis ni ku yor ay jabar ñaar wala ñett te amul kër waaw loolu kay mën naa nekk rawatina nag ci dëkku taax yi nga xam ni Ah, fii la loolu ëppee am na am na ñu yor ñaari jabar danga luwe sax te benn néeg nga luwe loolu gis nañ ko ak nu mu mën a demee rek moo tax ne nga jaaloo waaw nu dund ba xat xat xat moo tax nga jaaloo alakulaali te bari na ku ko def te ah, fam ko teg ak fam jaar ba def ko bu doon yawar noonu ngay def wala nga def lu ko gën a yées am na ku ko defit ci topp bakkan rek nag ndax xam na ni mënu ko. solool na jigéen ñi waaye dajale na ay soxna waaye xemme moo ko ci dugal ak yu mel noonu loolu jombul dana am kon fuñ teg limu soxna yi yow mi koy laaj mooy alayhi salaam moo wax ni te takatharoo fa inni mubaahihu bikumul umama yowmal qiyaamati rawahu ibnu marduy nee na na ngeen dencante muy sëy góor ak jigéen te bari bari dencante googu ndax kat yow xiyaam damay puukaréewul puukaréewu ci yéen bari gu ngeen bari yéen sama xeet wi ak yeneen xeet yi yi leen fi jiitu nga fekk nañ fi ay xeet yoo xam ni am na yonentu yëw dajeeg ñoom di leen woo ci ñu jaamu yàlla wéetal ko ci diine ja xam ni mooy diine lislaam kon loolu nag terewul alayhi salaam wax ko rek bàyyi waaye da caa daal di da caa daal di teg yeneen waxtaan ay ahadis yu baree bare bare bari yu gën a leeral yu mel noonu kon euh, foofu alxuraan àddu ci limitation bi nag mooy ah boo mënee def ñaareel day baax na boo mënee ñetteel baax na boo mënee ñeenteel yii ma lim nag nee na boo ko mënul yow bu la ci lim fekk yamal ci benn rek alxuraan loolu la ko waxe ma wax ko ci olof rek kon lislaam moom organisé na organisé na góor ak jigéen kenn ku ci nekk mbokk mi ni na ñëw ci nu ñuy tànne jëkkër ak nu ñuy tànn jabar moo ki ni ndax góor rek liñ dégg wu naa na tànn ku mel xanaa jigéen moom wërta tànn ah jigéen war naa tànn dina ñëw ci jigéen nu mu war a tànne xam naa ñëwaat lii doon defe naa mosoon nañ cee jaar waaw bokki kon euh, jullit bi daal daa war a xam ne moom moomul boppam waaye nag rëddal nañ ko lépp loo xam ne rek moom ca la war a jaar waaw ndax njariñ yi nekk ci sëy te am yu bari yuñ ci lim njariñul aduna ak njariñul àllaaxira bari na tarap tarap tarap tarap buxaari mi ngi nettali ci hadiis abu hurayrata boobu mu ni alayhi salaam nee na laa yamuutu li ahadin min al muslimina talaasatun min al waladi fa tamusu u naar ilaa taxlatul xisam ak yeneen yu bari yeneen yu bari yoo xam ni ba ko yonent bi di wax ni ci hadiisu Malik boobu bu jóge ci abi nadar asami mu ni yonent bi nee na laa yamutu li ahadin min al muslimina salaasatu min al waladi fa yaxtasibuhum illa kaano junnatan min an ay wiqaayatun ba mu waxee nag benn jigéen ni ko yaa rasulullaah aw isnaani mu ne ko waaw donte ñaar la lislaam ni amul kenn benn jurit buy am ak njaboot am ñett ñu ca faatu lu dul lañuy dox diggam ak sawara loolu si lu ko bu fekkee ñaar la am ñu faatu mun ko aw même même guddee ñaar ak yeneen yu yoo xam ni waaw kon eh, njariñ yi ginnaaw bu nit faatoo mënatul am lu baax lu koy mën a jariñ waaye doom jum yaroon ju baax mu bàyyi ko fi lu baax da koy fekk fa mu nekk loolu rek jar na sëy loolu sëy waaw waaye loolu nag kon li mu teg ci mooy kon na fexe ba njaboot gi nag na nga ko xamal diine yar yar bu baax waaw boo ko xanaa ni sëy day ci luy sabab joxe wërsëg la bokk denc soxna takk soxna waaw waaw day ubbi bunti wërsëg waaw wankul ayama wankixul xayama minkum wa saalixiina min ibadikum wa imaikum ba ca an yakunu fuqaraa yuxnihum allahu min fadli wala waasun alim ak yeneen yoo xam ne luy tegtale boroom xam-xam yi wax nañ ci waaw jël nañ ci jaabir muy am na waa ji ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko jàmbat ak ñàkk yonent bi lu ko demal nga takk soxla demal nga takk soxna waaw euh, Abu Hurayra nee na yonent bi alayhi salaam nee na ñett ngi nii ñoo xam ni ñu mat di jàppale lañu mooy almujaahid fi sabilillah wa naakihun yuridu an yastaafifa ak wal kaatibu yuridu adaa rawaahu tirmisi wal xaakim wa daaru qutni waaw salaasatun ala aqillaahi iaanatuhum ñett ñi daal ci ak suñu boroom waras na leen a dimbali mooy kii jihaad ci fi sabilillah liggéeyal yoonu yàlla fi sabilillah rek dafa yaatu lool waaye ki ci nekk daal nga xam ni kii daal serviteuru lislaam la kooku mat naa jàppale ndax jaar nekkul ci rek yor jaasi dem xare ji gën laa yaatu loolu laa laa bëgg a wax ak lan kii di denc te néewle nga nga jàppale ko ak mukaatib bi nga xam ne kii dañ ko bind dañ ko jàpp dañ ko dafa ci ak moomeel ñu ne ko yow day eh, ah, pour nga gore nga moom su bopp day naa booy loolu juróom fukki junni boo indee ñaar fukki junni boo indee nangam nee na kooko moom it nga jàppale ko ci ngir mu gore kon ñett ñi daal nee na euh, na leen dimbali ci ak suñu borom subhaanahu wa gis nga ko waaw ah. na sax benn mbokk ki rek nee na waa ji def bi mu takkee soxna ñëw ni alayhi salaam man day takk naa soxna waaye damaa ñàkk de mun ko ah, demal takkaat nee mu takkaat jëf gën a kii mu ñëw ni ko ah, ba léegi mun ko demal takkaat nee na waaja takkaatee ñetteel nag ci la soga defe naa kooku sama mbokk mi laa dégg mu doon ko nettali Oustaz Alioune mbokk yi kon ah tànn jabar ju baax ji sun ji lislaam digal te yonent bi wax ko jabar koo xam ni moom mooy sa daluwaay koo xam ni mooy defar sa kër mooy sa yaayi doom mooy sa magasin mooy sa collectif mooy sa aminu sirri bokk yi kooku kay war nga ko waajal nga ko waajal ah kay dañ koy waajal bu baax góor ni mu war a waajale moom it soxna si muy salaam ba ne Euh, dees na takk jigéen ci taaram sax naam de wala jigéen ji lay xaj na alal moo tax nga takk ko walla diineem wala fi mu bokk waaye ñett yépp tudd leen dafa ni vasfar bi taati diin taribat ya daakam waaye booy takk nag gis ñeent yooyu ne na demal ca ka am diine ki am diine walaahi kooku moo am taar nag ndax kii am taar te amul diine kooku moom taxul ñuy wax ki am alal te amul diine kooku wóorul ki bokk fu baax boo xefee dalay won ni la nangam laa sant wala birëb sangam laa dëkk wala diwe sama maam mais ki am diine nag yooyu yëpp da koy jomba donte am na taar donte am na alal alal alal na ko yëpp du la ko woon moom diine jëm moom moo koy orienté moo tax loolu moo tax kon mbokk yi waaw donte bu yépp daje woon ci te nit ñi dañoo seetlu nii e, bi ñuy mujje mooy na am diine déedéet waaw te dañ ko war na jiital ndaw si daal moom na taaru ba ku ne bëgg ko ndaw si daal ah yor na yor na comme ni ko gaa yi waxe waaw ndaw si daal ci famille sàngam la bokk loolu gis nga ko dafa mel ni diine la mujje ci diine lañu war la jiital diine lañu war la jiital xam naa ba benn jëngeen xawma benn faaleen ñëwee gis ndaw si lukki bëtam rafet lool ñu bari bëgg ko nag xam naa yàlla dogal moom ñu may ko ko bi ndaw si sëy see nag bëgg gi ko ñëpp bëgg waa ji fiir lool ba munta am jàmm yàlla wane la ko Euh, ak benn benn nit yàlla yàlla gi ni ko yow de sa moom mooy sa soxla waa ji dal gémmiñam koy wax saa yoo génne sa du dal waaye nag lay fi ñu nii am nga ñaar am nga ñaari ñaan yoo xam ni ah, yàlla nee na boo ko ñaanee mu nangu waa ji ne ko ah ñaari ñaan mu ko waawoo waa ji ne ko sama jabar laa bëgg mu ñaaw waaw laa bëgg daal laa bëgg mu ñaaw lool mu gën fee ñaaw am na sax ñu ne da ko sama jabar mel ni golo waaye moo dem kër ga daal fekk law si ñaawa ñaawa ñaawa aha waa ji nag am commencé am problème mu ni ginnaaw ñaari ñaan la ma waxan nag mu toog toog munu koo muñ munu koon maa ngi ñaan yàlla sama jabar dellu mel na meleen xisa boobu gaa yi daal lañ ko netti eh, ca ca ca jamono ji jàgg ja ndeysaan waaw kon mm, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bu ne laa tasawwaju nifaa li usnihinna fa asa usnahunna an yurdihunna wala tasawwajuhunna li amwaalihinna fa asa amwaalahunna an tudxiihunna walakin tasawajuhunna ala diin gis nga ko ba hadiis ba jeex ndaa bam ne jigéen dañ ko takk ngir alal ngir taar ngir nangam nee na bu leen takk jigéen kese ngir ab taaram kese ndax taar boobu bu ngeen ne jàng tuuti mu commencé wàññeeku wàññeeku wàññeeku ba duutoo gis taar ba ndeysaan bu leen takk jigéen ngir alal ah alal jaman na koo beew de wante ne na na diina tax nga takk diina moom moom day gën a ah, day gën a jag rek bu taxee nga dugg ci jigéen waaw gis nga ko am na fen mu waxee ci hadiisu anas ba ba tey man tasawaja imraa li isyaa lam yasit ullahu illa dullan ku takk jigéen ngir eh, tedd joo ci gis rek rek ko takk ngir alalam nee na du ko ci dolli dara lu dul ak yées yées waaw wanta sa waja imraa lam yurid biha illa an yaqdi basarahu wa yusina farjahu aw yasilu rahimahu barakallahu lahu fihi wa baraka laa fihi rawaahu tabrani nee na ku takk jigéen nag bëggu ci dara dara lu dul xaddul basar duutu soxla beneen jigéen du njaalo da ci yem doyloo ko ngir sange payam waaw ba du ànd ak keneen nee na yàlla daal di koy yërëm barkeel ndaw si barkeel ku góor ci gis ah war na mu tànn soxna moom ku góor ki soxna su baax waaye war na jigéen jët mu tànn jëkkër jëkkër ju baax ndax moo koy mën a servir comme yiñ tuddoon yëpp nga xam ni wax nañ dina jëriñ ñaari way dentente yi waaw jigéen ji nag moom it góor gu baax ko war a tànn ndax mooy tax mu mën ca am njaboot gu baax mooy tax mu mën caa am xel mu dal moo tax mu mën caa mu mën faa nekk di jaamu yàlla waaye bépp góor boo xam ne jikko ju bon la yor jigéen ju ci dugg xam nga ni moom di ko rëcc ndax la ji góor xañ na ci jabar ju bon ju mu yor nu muy def ba daal cay génn jigul jigéen bu nekkee ci jëkkër ju bon ju ko takk kon lañuy boole mag ñi ci tànn bi xam naa den ñëwaat incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah alkarim silmilan ala sihali bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به